lay ziar di la nuyu. waaw ñu ngi delloo laaj lu doon sa waraloon sa teewaay ci bis bi. waaw ñu ngi delloo ziar bu baax ñu ngi leen di fay bu baax a baax. tey nag euh, dañoo ñëw wuy si appelu président Ousmane Sonko. parce que dafa nekk leader boo xam ne ni vraiment dafa convaincre sénégalais surtout la jeunesse. ñun dañu gis suñu bopp ci ci ci ci projet PASTEF. parce que dafa nekk projet boo xam ne dafay privilégier li nga xam ne ni moom mooy euh, intéret ñi nga xam ne ñoo dëkk ci réew mi. parce que dañoo tàmmoon di gis des leaders politiques yoo xam ne bu leen yàlla joxe réew mi dañuy farak tubaab yi maanaam lépp li nga xam ne njëriñ la ci dëkk bi ñu koy jox tubaab moom nag mu ñëw incarné lu bees lu mu incarné mooy euh, partenariat gagnant gagnant maanaam naam jëflante mënul ñàkk ak yeneen réew yi mais sooy jëflante ak ñoom nga am fulla ju toll ni li leen jox ñu delloo la lu toll noonu ñun looloo tax ñu ñëw associé wu ci projet bi moo waral suñu teewaay tey Euh, persécuté bi nga xamné lañ koy persécuté tay ñu woté ndaje bi une démonstration de force Wara wan adversaire ñuy jàkkaar lool Ousmane Sonko du un leader politique bo xamné dañ koy comme def Khalifa Sall wala def Karim Wade lolo waral suñu téway tay ñu né nak dañu bëgg a ñëw taxaw bu am solo ba nga xamné ñi nga les ennemis ñu présence massive bi nga euh, patriote def les militants militant yi def Ousmane Sonko du njit bo xamné ni dañ koy liquider wala ko écarter ci prochaine élection yi di ñëw ci qu'ils lañ nekk parce que li nga la volonté populaire di la volonté di nga xamné volonté nit volonté population bi lool rek primé mais ñoom li ñu bëgg def moom du primer donte am nañ seen gendarmerie ak seen police parce que gis nga tey li ñu fi déployé ci ay gendarme lépp pour bëgg a ragalloo nit ñi waaw waaw loolooy message bi lu mu leen jaral rek ñoom ñun jaral nañu lu ko raw parce que Ousmane Sonko dafa nekk un porteur de projet projet de développement projet boo xam ne Sénégal gis nañ seen bopp donc ñun devoir la ci ñun obligation la ñu protéger ko protéger le projet Pastef looloo waral suñu teewaay fii tey